wa ridwanullahi taala al akbar an il abdil xadim wa an jamihi awliya illahi almuqarrabin maa ngi tàmbali samay kàddu ci tur sunu borom di wax bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla mi borom mbindéef yi di julli di sëlmal ci ki gën a tedd ci ñi yàlla yónni ci mbindéef yi julli googu na law ba ci ay ñoñam ak saabaam mbooleem seen ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk yi ñu déglu yëpp ak fun mën a nekk nuyoob islaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nu am mbégte dellusiwaat ak yéen ci sunu jataay bi di mbégte màggal gi tey nag di ñeenti fan ci safar raabiha safar tey kon sunu waxtaan ñi ko jëmale ci raabiha safar sëñ bi bind na raabiha safar خرجت يوم السبت رابع سفر تجسا سكور العطوف وعيتمد أمنا خرجت يوم السبت سامين عصر لخدمة المختار في سهر سفر كون دائما نسين بي تدنا رابع سفر تدنا سامين حسر لكن نك لولو دما واخني دو تناقض دو ووتة دو دو دو دو contradiction xaraj yow ma sabti raabin safar ak xaraj yow ma sabti saamin xasar dafa laaj xóotal ci dégg-dégg ak it e, fi'lu maadi yi dafa bari lu muy firi fi'lu maadi yi dafa bari muy wund fi'lu yi bi sëñ bi jëfandikoo xarajtu fi'lu maadi yi biñ ci gën a miin mooy mbir xew ba weesu nga di ko nettali xadas bu am ba weesu nga di ko nettali masalan nga ne zaaba ahmad saaba ahmadu ahmad dem na nga xam dafay tegtale jëf joo xam ni jëf la ju am ci waxtu wu weesu ba tey isaa sax su jiitoo fi'lu maadi dana tegtale amuk jëf ci jamono ju weesu maha ifaadati taqiiq ànd ak euh, di wundu certitude fexlu maadi ba tey bu ko kaana jóge waaw maanaam li ma bëgg a wax fexlu maadi bu ko xat jiitoo baatub xat bu jiitoo fexlu maadi damaa jum na isaa waaye fexlu maadi bu ko bu ci bu ko xat jiitoo dafay tegtale amuk jëf ci jamono ju weesu maxa ifaadati taqiiq ànd ak confirmation waaye fexlu maadi bu ko kaana jiitoo dafay tegtale sosuk jëf ju baa jëf ju paase ju am lu njëkk sosub beneen euh, jëf ju weesu ba tey fi'lu maadi sax léeg-léegi dana dem bay te mooy euh, verbe passé simple day dana dem bay tegtale futur bay tegtale lu ñëwagul surtout bu fekkee dafa nekk ak ñaan ndeke nga ne raxaakallaa gis nga raxaaka allah googu tadullu ala al mustaqbali ba tey it wala mu làmboo chart nekk in darasta kasiran tanja soo jàngee bu baax danga nga réussite wala fixlu maa di ñëw lënkaloo ak baatub yakuunu nekk akunu xafisu duruusi indama ashabu li anama gis nga foofu fi'lu maadi gi dafay tekkitale xafisu googu dafay tekkitale di jëf ji day am ci fitiir ci li ñëwagul am na lu ñuy wax fi'lul maadi mustamirra nekk wa kaana allahu samihan basiran wa kaana allahu xafuran rahima am na fi'lu maadi boo xam ni dafay tekkitale jageeg mbir mbir mu war a ñëw ta jege ndeke atee ataa wala atee amrullahi fala tastahjiluhu te loolu ay xaruba amrullah mbirum sun borom mi jege ne ndeke booy no booy liqaam nga naan xadd xaamati salaatu gis nga baatub xaamati googu fi'lu maadi la waaye lim ci na mooy ay xarubati salaati mooy julli gi jege ne ndeke lu jege si léeg-léegi danañ ko taxbiir exprimer ko ci fi'lu maadi waaye noone la amee fi'lu maadi boo xam dafay tegtale de dafay tegtale boo nammee def dara fa ida xaraxta alqur'ana fastaxis billahi min alsheytaani rajim soo nammee jàng alqur'an gis nga soo nammee jàng alqur'an na nga muslu ci yàlla ay ida aradta an tatluwa alqur'ana fastaxis billahi min alsheytaan rajim ak wa isa xumtumoo ila salaat gis nga foofu xumtumoo fexelu la waaye ay isa aratum an taqumoo li salaat bu ngeen nammee julli kon xarajtu yow ma sabti raabi xan safar mooy arajtul xuruja yow ma sabti raabi xan safar ndax ci la amoon yéenay génn ci bis boobu amul ndigal mu toog xaar ndigal am ndigal la ca 18 safar mu soog génn kon xarajtu yow ma sabti raabi safar idaadatu xurujin la mu ixtibaar ko mu taxbiir ko ci fixlul maadi bi ci des xara xarajtu yom sa saabi naasar moom fixlul maadi bi nga xam ne day tegtale mbir mu am ba weesu mu di ko nettali kon du tanaqut du contradiction kon xarajtu yom sabti raabiha safar ak xarajtu yom sabti saabi naasar am na te lu ci ne ci Sëriñ Tuubaa la jóge boo demee ci xisab cheikh Mouhamed lañu dagana bi nekk ci minihul miskiya fil xawaarixil mbakk yi te mooy ci xisab lëg ba lu ma xoon innama ataalu yu zakira bi yowmi al qurbati wam mihaihi bi haadal yowmi sëñ cheikh Mouhamed lañu dagana waxi sëñ Tuubaa lay nettali nee na lëg gi dafa ñëw dañu fàttali bisub tumuraanke ba ak far gañ ko far ci bis bii mu ne wa kaana yowmul qurbati saamina xasar safara jaysin wa kaana sabtan daal di ne bisub tukki ba fukki fan la ak juróom ñett ci weeru safar ne woon gaawu waaye bis bi bi lëggi ñëwee tamit fukki fan la ak juróom ñett moom itam di bisub alxamis ci 1340 kon gis nga fi tamit sëñ bi moo xam ne ne 18 mm, safar ci la génn comme ni mu bindee xare ci yow ma sabti raabiha safar kon yaakaar naa loola leer na ñaar yëpp ci sëñ Tuubaa jóge kon nag dafa laaj aw déggin sëñ bi sax amna khasida gum tënkee sax yawma sabti rabiha safar bisu gawu ñeenti fan ci wéru safar mo tàmbali ci yallah ya khadir ya muqtadir ya man ila sukurihi abtadir wajih li yawma ma dawaaman aafiya waccal xayaati daata yum nen baaqiya xëy na xasiida googu sax danañ ci ñëw gis na sëñ bi waxe ci ak noni no xamni ah bu fekke amna fi ko sëñ bi def bariwul akhrij hidaka sarmadan min rahmatika sa noon yi na nga leen génn faw sa yërmaande yow sun borom walin taxama minhum bi bi ab xaa nixmatika noonu fu ko sëñ bi waxee bëriwul bi kaw ni kal baax yi ku fa mawti ila nasaara wastami di sawti yàlla nekk gi nga nekk di aji des ji sama na nga sama dee na nga ko fekk jëmale ko ci nasaraan yi kon mbokk yi yow ma sabtira bi safar mi ngi noonu Euh, yow ma safi saamina akara mi ngi noonu du tanaaxut lu ci ne ci sëñ Tuubaa la jóge waaye lu ci ne dafa am maxnaa boppam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maanaam damay topp gëstu mag ñi li ma gën a neex ci seen liggéey mooy gëstu mag ñi ngeen di def loolu rek bëri naa ci mbokk taalibe liñ ci liñ ci abonné kenn xamul nu mu waaye damay gën a soññaat di soññaat sama bopp bépp mbokk taaliba nga xam te ne yaa ngi dégg yaa ngi dégg sama kàddu man Assane Sow maanaam nga abonné ci Mbectemi TV ndax ndax rek li tax nga war rek mooy Mbectemi rek ci xalifa gi rek Mbectemi lay ba ci sa suñ Muntaxa mi nga xamante ne ñëw na gën ñoo woo ci nga xamante ne mooy mbég mi kon gars yi li may soñ sama bopp di ko soñu mbokk taalibe mooy nañ abonné ci Mbectemi TV ndax abonné mooy doon tawfeex gi maa ngi ñaan ci darajey maam Serapha mu teg ci Mbectemi TV loxo ba nga xamante ne day doon bërigo ci mbartal ku teg loxo mu ku tegal ma loxo mu dem ci barkeb Nuuru Daarayni barkeb Jaalibatul Maraaxib barkeb Sindiidi barkeb wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'miniin ñu ngi tudd ci kàddu yi baax a baax. Ndëgtime TV Ndëgtime TV. Ndëgtime TV. au cœur du mouridisme au cœur du mouridisme